Cheikh Béthio Thioune ginnaaw bi génnee àddina ci France ci Bordeaux indi nañ ko fi nga xam ne moo di ci Sénégal ngir jébbal ko boroomam loole nag ndigal la ci xalifa général Serigne Mountakha ba Bachir joxe ngir ñu indi ko ci bërëb bu sell bi di Touba ngir denc ko fi loole nag nekk lool njaboot gi jëfee nañ ko loole moom moo tax ci àjjuma ji ñu ànd ak délégation bi ak mbooloo mu takk lool ngir ñu ñëw ci Touba Mbacké jébbal sëriñ Cheikh Béthio Thioune boroomam fii ci Touba nag mbooloo mu takk lool ñoo fi daje bàyyeekoo fu ne kenn ku ci nekk bëggoon a gis jëmm ji laata ñu koy denc lu ni mel nag taxoon na ñi nga xam ne ñoo di takk der yi jël matuwaay yu am solo ci kaaraangey mbooleem ñi nga xam ne dañ fiy ñëw ngir kenn bañ a am benn jafe-jafe ba ci ñi nga xam ne ñoo di waa sapeur pompier. koor bi nag bi mu agsee ci Touba Mbacke Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacke Bachir xalif général de Mourides dafa joxe woon ndigal ngir ñu jaarale ko ci kër Serigne Saliou Mbacke gi nga xam ne moo ne woon wasilaam laata ñu koy waajal di ko jébbal boroomam loolee nekk lool njaboot gi jëfe nañ ko waaye sëriñ bi joxoon ndigal ki nga xam ne moom moo di Serigne Fallou Mbacke moom Serigne Abdoul Khadr ak mboolem kilifa yi ñu taxawu ko. mu nekk taxawaay bu am solo boo xam ne kilifa yi amal nañ ko ci teewaayuk sëriñ Basiiru Mbàkke Abdul Xaadir waaye ñenn ci njabootuk sëriñ Saaliw gi bokk na ci sëriñ Murtala moom sëriñ Saaliw ak sëriñ Jili moom sëriñ Saaliw Mbàkke ñoom ñëpp ñu teewe ko ak kilifa yi politique yi ngir gunge Cheikh Béthio Thioune ci këram gu mujj fi nga xam ne nag moo di ci armeelu Tuubaa njëkk yi nga xam ne moo jàkkaarloog jumaa ji fi lañ ko waajalee daal di koy jullee laataa ñu koy yóbbu ca bàq ya foofee nga xam ne fa lañ ko denc ci bërëb bi nag ki nga xam ne moom moo di Cheikh Béthio Thioune ndigal la sëriñ bi joxe ngir ñu fàggul ko fa benn bërëb boo xam ne fa lañ koy denc mu toll ci 200 mètres carrés kon ci ajuma ji dëppook ñeenti fan ci weeru koor atum 1440 ginnaaw gàddaayu ko yonent bi salallaahu alayhi wa sallam di le 10 mai 2019 ci lañ denc Cheikh Béthio Thioune fii ci Touba Mbacké ginaaw bu mu génnee àddina ci ndigalu xalifa général des mourides di ko ñaanal yàlla yokk ay leeram te taas ci barkeem kon mbokki téléspectateurs yi ñu ànd ak yéen ci mbooleem temps fort yi nga xam ne moo am fii ci Touba Mbacké ci biñ fi indi Cheikh Béthio Thioune ngir jébbal ko boroomam parce que ci biir ba oto bu dugg ci biir biir bee tax quoi. sànni ko bu yàgg oto bi mën a dugg foofu. gendarme anu Ousmane Sarr day Hmm? Hmm? ok ça va ba du ko joggi préparé quoi. Thank you.

Abdou Khadr moom ñëw na ñoo dañuy xaaral ñu jërëjëfati jërëjëfati jërëjëfati Serigne Saliou Mbacké. jërëjëfati Serigne Saliou Mbacké. déglu leen nag sëñ bi yëpp na ko jërëjëf. jërëjëfati Serigne Saliou Mbacké. ñëpp àgg suuf. na ñëpp yegg suuf nañ toog dafa tàng na ñëpp yegg suuf. yegg nañ suuf yegg nañ suuf.

da ngeen jóg sa mbéy mi ba sëñ bi lay nuyu. sëñ bi ñu lay jaaree sëñ bi ñu lay jaaree. mais dafa tàng nag ni ngeen taxawee wër leen nii. abo fii laa ko wax fii laa ko wax ñu ne su ma su ngeen ko wax ngeen seen biir suuf dégg nga su kenn dugg seen biir suuf am na suñu

Béthio da ngeen koo wóor da ngeen a wóor Serigne Béthio yàlla kii sax gor kii kii daa war sëñ Tuubaa non da leen koy gañ mais